teg gët bokk na ci ay farandooy bun jonn mam boy jaawoo ñoom ñëpp nag fëx nañu jamono ji wutali leen ñi yéene bi xëy wutali ji leen tey ji bun jonn laak Amadou Ba seen foto mu xëy fësal ko ci xëtam bu njëkk yéene kaay bii di le quotidien ne fi mu toll ni kay déggoo amut ci diggante ñaar ñii ndax ki fi nekkoon Elimaanu jëwriñ di bun jonn ma ngay xam le ci biir yëglekaay bi ne cinq délégués régionaux yu bokk ci moom nguur gi jamono ji teg na leen gët te li mu bëgg rek mooy jënd leen yër leen yéenekaay bii di le quotidien l'info ne jamono ji kay moom bun jonn ma nga yàq lu mel ne xemee waa bennoo bokk yaakaar nguur gu amatul yaakaar ci seen bopp moo waral nag ñuy wër di dikk askan wi ay koppar ak bien foncier le témoin di ko feelu ca wet ga ne geex total kay fi mu toll nii moo ne ci diggante Amadou Ba ak Mouhamad Boun jonn ndax délégué mi nguurug Sénégal teg gët ci jamono ji moo waral nag mu ne gat sa gat sa boo moytuwulee ca lañ jëm borom gat sa gat sa moom la enquête yéenekaay xëyee niki tey ji Ousmane Sonko mi nga xam ne rek nee na cocc daal di taxawal ay stratégie yu ngir janoog nguurug Sénégal yéenekaay bii di enquête xëy samp laaj ne deltu ginnaaw bi ñu nemmeeku ci Ousmane Sonko Sonko ci guerre bi mu doon wootee ndax amut lu ca làqu Amadou Ba bokk ci Pastef ni seen combat ak président Macky du xeexub doole ci biir yéenekaay bi Mamadou Sy Albert di xam ne ni xanaa xamu leen ne Sonko lépp lu mu doon def rek coowal Adji Sarr ji bokk na ci li ko waraloon ci jamono joojee Fadel Barro dib candidat bu jàmmi gox yi di xam le ni système bi ku ko bëgg a dépassé faaw xiiroog ngaayoo bi da nga koy teg ci suuf yéenekaay bi di bés bi le jour la séqal waxtaan wu yaatoo yaatu dellu siwaat na ci la muy proposé di programme ngir quatrième pouvoir bi yéeglekaay bi di Sud Quotidien nag moom xamle bokk na ci ku jégeeg cellaaral gi ñu am ci li nga xam ne mooy coppite yu ñu nemmeeku ca Sénat blocage yi nga xam ne moo jëm ci rapport corps de contrôle yi rawatina nag ni ñuy salfaañee règlement intérieur bu assemblée nationale loolee lépp nag moo waral mu ci noppi gi nga xam ne ku jégi noppi na ko ci ñi ñuy critiquer kay ak di leen ŋaañi ci jamono jii te kenn déggut ñu wax mbaa ñu sëqat bokk na ci ñu fare ci nguur gi kàddu yi nga xam ne rek boobaak léegi ñu ngi koy jëmale ci ñoom moom ji turéew mi lii ci la yéenekaay bi di l'observateur daal di xëy samp ab njiitu réew mi ma ngay waajal ab conseil présidentiel boo xamante nii dañ koy jagleel wàllu investissement yi mu toll ni kay Macky Sall xembanteefam rek mooy dajalee koppar yoo xam ne rek dana ko mën a amal ci investissement yi ne ci kanamam beneen bi yéene kaay di la soleil xëy dikk ci inauguration bi ñu doon amal ci sphère ba ñu tabax foofee ca Diamniadio yéene kaay bii ne fanweer ak ñeent ci ay liggéeykat yu bokk ca ONU seenub dalluwaay lay doon addu jëmale ci wàllu yoon ak libération bi nga xamante ni xëy na tey nag daal di fësal ressortissante bu française bii di Colline Faye moom gi ma nga ca nungu siina Moxtaala Gaye ñu gën koo xamee ci nit dof démb la ko doyen des juges placé sous mandat de dépôt yéenekaay bi di tribune di xamle ni CNRA jamono ji ma nga xupp waa Zik FM ak waa Sen TV ne nag boo moytuwulee ñaari chaîne yooyee daañu ko ndar kepp li ko waral nag bokk na ci propagande bi ñu jàpp ne dañu koy amal ci seen émission tàggat yaram ca la ñuy àddu rëg-rëg ma ngay xupp kii di Bombardier ci biir yëglekaay bi di suñu làmb ma ngi koy xamal ne bu arbitre def lépp lu ma mën nag ngir duma la la ci ay minutes yu gàtt ñu jeexalee ko ak yëglekaay bi